donc lii moo fas yéene nekk mën a bu tey buñ ci toppatalee li nga xamante ni moo di euh, la toile actualité trucs et astuces mœurs yooyu noonu yëpp di ngeen ko am incha allah ñoom léegi ñu daal di ñëw ndax dañoo nekk di def ay capp cappal daal. ayca donc dañuy daal di ñëw léegi de ñu dem ci rubrique li woon démb. ayca may Babacar Sadekh daal di la bàyyi rek ñu daal di door waxtaan wi. Euh, soxna Fatka sëriñ Modou Moustapha lañ war a waxtaanee tey sunu sang bu tedd boobu di doom ci Cheikhul Khadim Serigne Modou Moustapha ñu ngi juddu ci diggante ñaari wàll ñaari wàll yu baax muy. ngarni ak cëriñ boo toppee wàllu ndeyam mu di ngarni soo toppee wàllu baayam mu di cëriñ ci wàllu askan ñu ngi bokk ci askanu Mbàkke wu siiw wu baax woowu ci réew gën ràññeeku nag ci doon sët ci maam Maharam Mbàkke maam Maharam Mbàkke bu nu waxee Mbàkke ci réew mi mhm. xel yu bari dina dem ci maam Mbàkke mhm. ngir li sëtu ci moom mhm. ci wàllu mbaax kenn xamul nu toll muy Mbàkke ah. muy si ak yeneen i askan yu bari ci réew mi surtout ci Mame Mara Mbacke Serigne Modou Moustapha Cheikhul Khadim la bàyyam tudd ñu gën koo xam ci sëriñ Touba. waaye ci ay tur yu bari ndax tur yu bari dafay tegtale tedd ngay ke ñu tuddee tur yu bari ya wane xaadim rasul wane Mouhamadou Bamba hmm. waaye tur yu bari yooyu yëpp rek mu ngi tegtalee màggaay ak tedd ngay kooku nga xamante ne moom lañ tuddee tur yu bari yooyu cheikhul xadim la bàyyam tudd cheikhul xadim Mamor Anta Sali la bàyyam tudd hmm. Mamor Anta Sali Mam Balla Aysa Buri la bàyyam tudd Mam Balla Aysa Buri maam Maharam Mbacke moo ko jur maam Maharam Mbacke Abibulahi la bàyyam tudd Abibulahi Mouhamadul Kabir mooy bàyyam Mouhamadul Kabir maam Ousmane la bàyyam tudd maam Ousmane moomu askan woowu ñu jóge woon Fuuta ñëw ci réew mi maam Ousmane mooy ki njëkk wax wolof ci askan woowu noonu la juddu ci wàllu askan di askan wu tedd ci wàllu cëriñ ci wàllu mbaax ci wàllu jikko ak ay melo waaye ci wàllu yàlla ba nga xamante ni lépp loo xamante ni sëtu na ci ñoom euh, macha allahu rabbi seen cër foo ko takk mu weesu ko sëriñ Modou Moustapha Mbacké ci wàllu ndeyam mi ngi sëtu ci barget saa xewar Fatma mhm. saa xewar Fatma kulli ko du ngoy ndaw wégéej ba mangooneem xel somboñ ba mbañ gànna leel xaley ba gànna kulu kulu jàll gar njaan bardaagu geedoo geet geet njaajaan njaajaan njaay aboo daar daar wallaay wallaay barget saaxeer Fatma maamam dafa tàllal jox loxoom ñu jox ko Issa Dieye Diop moom ci juróomi lingeer yi hmm. Aysata Koddu Sàmba Fatma hmm. Maxuraja ak Joor hmm. ñooñu seen jureef ak lisatu ci ñoom macha allahu rabbi yaatu na joor rek moo ci amul doom barget saxeer Fatma maamam dellu tàllal loxoom ñu jox ko soxna ñaan moom kaddi baro moom ci Ablaye soxna ñaan Matar Ndumbe soxna ñaan Médoune soxna ñaan Binta soxna ñaan Médoune soxna ñaan moom la ñu jox soxna mbay moom ci saaxewar soxna mbay saaxewar soxna mbay ñu jox ko Ngoné Latir ab sa moom ci Lat Joor Ngoné Latir hmm. sëriñ Modou Moustapha noonu la bokkee Lat Joor waaye barget sa xel Fatma maamam ba tey dellu tàllal loxoom ñu jox ko yàlla xuj kumba sey ba mu am ci Amadou yàlla ak Aminata yàlla Amadou yàlla moom lañ jox Fatmata Guy mu am ci Seynabou Diop ñu yóbbu ko Jolof jox ko Biram Jéemeen jotee ba ko koddu bii Birame Penda Farimata Ndimo Dorobe ba mu am ci Alburi Seynabu hmm. mi daa dax daxee garmi wallaay ndeysaan sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sëriñ nga xamante ni mooy maamam sëriñ Modou Moustapha tamit noonu la bokkee ak Alburi Seynabu waaye Amadou Yàlla hmm. Aminata Yàlla mi bokkal ndey ak bàyyi moom la ñu jox sëriñ kokki Njaga Issa Dieye mu am ci Samba Aminata ak Matar Aminata ak Marema ak Penda ak Ndaat ak xarimam doomam yu barkeel yooyu tamit macha allahu rabbi li ci sëtu kenn xamut nu mu toll euh, Serigne Modou Moustapha kon la Serigne Fall waxoon rek ne maay Sénégal. bu baax ci réew mi. sëriñ Modou Moustapha bu tedd moom bokk naa ak yow bokk naa ak yow wallaay Aminata Lo mi nga xamante ni moom moo ko jur xarimam moo ko jur waaye xarimaam dañ koo njëkk a jox bu ndaag jaane sàngomba moom ci yaaba xarimaam yaaba xarimaam jur Cheikh yaaba keroog bi nga xamante ni war noo dem guerre mondiale. Hmm. te Lamine bi ñëwoon di tànn walla di jël ay nit ñu war a dem di ji tubaab yi ca guerre ba. Hmm. da nga xamante ni ci kër Serigne si la jaar. Cheikhul Khadim keroog ba mu joxee ndigal ba moo Modou Moustapha ni ñuy bëgg a waxtaanee. jël kati ba. maam Cheikh Yabou Diop boobu moo téye ca kati ba ne ko sangale ma ma rafaatal la ne ko sangale ma ma rafaatal la rafaatal maanaam ma remplacer la jël sa place au lieu que yow sëñ Modou Moustapha ngay dem ca guerre ba mhm. man Cheikh Yabou baal ma demal la sa place oh, macha allah ndax jomb naa buntu fetal te regg naa am tànn maanaam jomb naa buntu fetal fetal mënumaa mhm. rey mukk ndeysaan est-ce que moo tax mu ne ko jomb naa buntu fetal regg naa am tan doonte fetal dama rey tey ma dee nekk ci àll bi tamit bu ma tan tiima di ma lekk dana rey moo tax mu ne ko sangalee ma ma rafatal la jomb naa buntu fetal te regg naa am tan waaye day ndax xarimaam moo jur yaaba moom la jot moom ndaag jaane sàngom ba moom ci yaaba xarimam yaaba xarimam moo jur seex yaaba xarimam moomu di mamam ba wuree wax xàccee. da nga koy jox tafsir Matar Binta Lo. mu doog caa am nag Aminata Lo jigéen ju baax jooju nga xamante ni jaloorem yaatu na. garab bi nga xamante ne nii am na ko war a dem. nga xam ne Cheikhul Khadim daf caa bokk dana Cheikhul Khadim yow sax nekk ci jamono kenn mënu ko wecc ci àddina. wallaahi. ndax danga bokk ci ñi nga xamante ni ñoo war a xett li jamono kon baal ma dem soxna Aminata Lo moo dem keroog bàyyi fi Seexul Xaddim soxna Aminata Lo moomu moo jur Serigne Modou Moustapha mm-hmm. ñi nga xamante ni moom la ñuy bëgg waxtaan nga gis ni juddu ba rafete mm-hmm. ci wàllu cëriñ ak wàllu ngar mi waaye gis nga xari maam maamam jooju ñu mu bokkal ndey ak bàyyi ndaak ñi nga xam ne moom la bokkal ndey bàyyi moo jur ma sàmba gàddu ndaak mu jur Mor Jàng Jóob mu jur soxna Aminata Lo Jóob soxna Aminata Lo Jóob moo jur Sëriñ Mbàkke soxna Lo waaye gis nga Penda Buyo mi nga xamante moo xarima ma bokk ndeeg bay ba tey penda bu moo dem ca wuramaat yu am fa ibra penda bu yow penda bu jur Sadio ak Aminata Ba Sadio dem Ndiassane am fa Mouhamadou Sadio saajo ñu jox ko Aminata Fatma Bambado mu am ci Mame Bou Kounta Ndiassane Serigne Modou Moustapha noonu la bokkee ak Ndiassane. bokk gi dafa yaatu. Hmm. waaye dafa rafet. wallaahi ndeysaan. mi nga xamante ne moo xarima ma bokk ndey ak bàyyi Marème moo dem Camara ga ci Jolof am fa awa dikke Camara awa dikke Camara jur. Euh, Ndumbe Daano Ndumbe Daano. jur asawaala mu jur maam Jaara Buso moom it noonu la bokkee ak macha allah euh, meen meen woowu te xam nga ne maam Jaara moom Mouhamadou Buso ñoo bokk ndey ak baay Mouhamadou Buso moo jur aw Buso mu jur Sëriñ Fall moo taxoon Sëriñ Fallu naan may Sénégal ndax mbokk gi ni mu yaatoo te rafet noonu la gane jamono moom Sëriñ Modou Moustapha ci gane jamono gu rafet ci atum 1888 ci diggante ñaari jur yooyu yu baax yooyu ci dëkk bu tedd boobu nga xamante ni moom moo di Daaru Salaam di dëkk boo xamante ni baayam bu tedd ba moom moo ko sancoon di dëkk bu bari taarix hmm. te rafet aw sancin Serigne Modou Moustapha dëkk boobu foofu la gane jamono ci 1888 noonu la juddoo noonu la bokk réew mi noonu la gane jamono ci wàllu ngar mi ak wàllu cëri euh, macha allah rabi ñu teg foofu suñu baaraam alxames ji di ñëw ñu daal di xuus ci dundam gu rafet googu fam ci tegoon ab tànkam ba na mu wutoo woon baayam ak na rafetale ba na mu demee fekk bàyyi mu tedd boobu àjjana. macha allah sëriñ loolu Mustafa sëñ Modou Moustapha Mbacké ah. euh, daanaka comme ni nga comme ni nga wax rek bu ñu xoolee ci li nga xamante ni mooy ci juddoom mën nañ ne foo ci Sénégal rek moom ah. mm-hmm. euh, dafa dafa dafa dafa dafa bokk ñëpp. ba ci euh, tey jii nii boo duggee ci fi nga xamante ni mooy famille Mame Maodo Malick Sy. Mm-hmm. boo xoolaatee li nga xamante ni mooy ab xaw ma général noonu lañ waxee mm-hmm. gis ne ba tey bokk bi dafa daal di dem ba ba ba ba foofu donc dafay rejoindre rek li nga xamante moom la Serigne Fallou Mbacké doon wax. te ni moom mooy moom mooy Sénégal waaye te mën nañu ne Serigne Moussa Serigne Modou Moustapha Mbacké moom itam moom mooy Sénégal tey dañ ci daal profité rek di nuyu waa Daaru Xuddoos bu baax a baax mm-hmm. parce que ñu ngi génn si màggalama semaine ba le passé mm-hmm. Daaru Xuddoos mm-hmm. nga xam ne ci la ñuy fàttaliku moom moom la di Serigne Modou Moustapha amaana li ci bëgg a wax yëpp xam naa ci seconde partie bi dinañ ko ci wax parce que boo xoolee ci seconde partie bi xam naa ci ngay ñëw ci nekkinam dund nam euh, jàng alxuraanam na mu taxawee woon bàyyam bu tedd ba di Serigne Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ba ni nga xamante noonu liggéey juma Touba ji Mm. yoon xam naa. Mm. walaay walaay walaay walaay walaay ci waaw xam nga ndax maam Maaram Mbàkke mi nga xam ne mooy maamam mm-hmm. moom moo jël Farimata Sekk euh, am ci Amadou Farimata mm-hmm. Amadou Farimata jur Mati Mbàkke Mati Mbàkke lañ jox tafsir Demba Bunna si moom ci maam Ousmane si maam Ousmane ñu jox ko moom fa wadd ma ca gaaya moo am ci Seydil Hadji Malick moom it noonu la bokkee Tivaouane. macha allah ci mbokk gu rafet d' accord avant ñuy continuer damay daal di dalal ñi nga xamante ne ñoo ñuy soog a rejoindre ah ma daal di nuyu rek madame Mokho Mandela. Thiawara mm-hmm. madame Guèye nuyu naa la. <laughs> fay naa bu baax. yaa ngi tàkk ba yaaxu ci matinale. déggal loolu. yow doo sama wujju de déggal. <laughs> madame Guèye maa ngi lay fay bu baax di nuyu ñu ma bokkal plateau di nuyu également ñi nga xam ni ñoom ñoo di ami téléspectateur yi tam moo seetaan Petit Déj bu baax baax. d' yaay bébé Luna yow itam ci kanam tuuti dinañ ànd ak yow ci. toile yu tàng yi waaw yu tàng yi waaw càmbar li nga xam ne moom moo gën a fës ci réseaux sociaux yi ñu gën ko publier gën ko commenter moom lañu indil ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi ñuy seetaan. d'accord incha allah dinañ ci daal di kon ci kanam tuuti incha allah mm-hmm. ñaareel xaritu jëkkëram. nuyu la moom man ni muy peloo ah, neex ñoom ma ah da ngeen niróo la. waaw nga moo la woo bettu ma woon. xaaral ma ngeen xeexee neex na ma daal retour nañu jàkkaarloo. waaw loolu def ma neex. <laughs> ma xaw bari doole. mën naa leen bay Babacar. ndeysaan ndeysaan walaay ndeysaan. wax ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi baaxoo di seetaan euh, émission bu mag bi di Petit Déj Fatka. Hmm. foo tourné rek ñu lay wax Petit Déj macha allah ak. Euh, mu am ci àddina. Hmm. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. d' ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax xayri yow itam parce que namoon nañ maa leen waaw tey nag ma indeeti mbir bu xaw a doy waar. Euh, muy mbirum pédophilie ñu gis ni dafa bari ci dëkk bi lool lool lool lool tey nag dafa am ci cas yu bëree bari yoo xam ne ce qui est dommage rek mooy amuñu reportage mais yaakaar naa ni jeudi bii di ñëw dinañu am temps pour mën a def li nga xam ne mooy reportage bi parce que dañu jokkoo ak ñoom ci li nga xam ne mooy mbirum téléphone fat que mu nekk lu doy waar daal mu nekk benn locataire benn parent boo xam ne dafa am lu mu jëf jëflanteel ak doom ci mu luwee voilà loolu lañ fas yéene waxtaan tey jéego jéego Souleymane Faye jàmm na ñooy cere cere yooyu itam am na loo bëgg a sànni ci waxtaan bi ci. waaw maam yi rek di indi daanaka loo xam ne nii rek dañ dañ ciy mën a teg loxo mën cee duut baaraam aussi mën koo déglu bu baax a baax muy neex tam ci suñu biir xol yi. Mm-hmm. démb moom mën naa ne. Euh, kiiwu askan wi la rubrique askan wi la ñu ñëpp dañ ciy gisuñ bopp waaye tey jii nag particulièrement defati naa la chèque rek comme ni ma koy defee ndax da dugg fi nga xam ne ni man fa laa jokk foofu laa jokk waa sëñ Moustapha mi nga xam ne ni tey jii eh, fa la sama wayjur wu góor jokk yaay tam bëggoon fa lool ñun waa Daara Xuddoos lañ encore une fois du ma tàyyi ci di ko wax moo tax daal xam naa du ma soro ci wax bi ndaxte eh, ki nga xam ne ni moom mooy sëñ Modou Moustapha mu sam papa moom ma nga Touba di nelaw ma koy ñaanal encore une fois yaxam yi sedd mm-hmm. ma nga ma nga ki nga xam ne moom moo di sëñ Cheikh Mbacke aussi ma nga fële ci ci ci ci jàmm gën ma leen di nuyu ñoom tam de passage kon xam nga sam kon euh, presque mën naa ne Daaru Xuddoos la bokk dëgg naa ndax heure bu juree doom rek xalaat na ñi nga xam ne tuddee na ko waaw jox na leen ñoom tam ma leen di ñaanal ñoom sama way jur yooyu euh, fa ñu nekk rek gën a leen fu fañ jóge di leen ñaanal rek encore une fois encore di ziar képp koo xam ne rek yaa ngi jokk Daaru Xuddoos encore une fois aussi koo xam ne rek waa Daaru Xuddoos nga maa ngi leen di di ziar sëñ Moustapha bu baax a yeesal suñu njëbbal ci moom. d'accord mu ngi noonu yi kàddu yi rafet Coro. Ah, <laughs> wallaay wallaay ndeysaan ay Babacar xam naa dañu lay bàyyi rek ñu euh, tëj ko foofu comme que dañuy def continuité jeudi prochain. Mm, mm, mm. incha allahu rabi alxames ji di ñëw rek ci kàddu yàlla ñu dal ci euh, xuusaat. Mm-hmm. di nuyu xarit yi ak soppe yi yëpp Mamadou Ndiol Fall mu ngi foofu ci caajaay jóge na itali ñëw na ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax suñu xarit baax waaw suñu xarit bi borom xaalis bu bari bi borom nuyu bu baax sama xarit docteur Mbaylo di nuyu sama yaay Dieynaba Fall di ñaan yàlla yokk teraangaam guddal aw fanam tam ànd ak wér mhm. ci dërëje yonent yàlla Muhammad di nuyu bu baax sama baay baayu bopp sama baay Adi Wadd mhm. nekk foofu ci RTS sama baay bu baax te bëgg ma yàlla na yàlla guddal fanam moom it mhm. xarit yi ak soppe yëpp noonu di leen di ziar sama yaay ak sama baay maa ngi leen di nuyu di leen delloo njukkal waaye nag euh, sama soxna yaay Muhammad euh, bitu rafet anniversaire am suba la. Hmm. ba pare li ci gën yéeme. <laughs> mooy papa Thié mu ndaw ñoo bokk anniversaire. waaw doom ji nga xam ne moom la koy moom lañ yàlla mujjee jox. ñoom ñaar ñoo bokk bisu juddu. macha allah euh, yàlla na yàlla guddal seen fan. te mu ànd ak ak wér ci dërëjë yonent yàlla Muhammad. seen lépp leer ba mel ni weeru jolloor. bu génn ay ceeñeer. def jàmm ci réew mi. ak ci àddina bi yëpp ci dërëjë yonent yàlla Muhammad. man daa bëgg naa ni ah borom kër day sagal soxnaam biti ah, laa war nga ko defal nag benn poème bu baax na yow nag gën ci def yàlla na ko yàgg fekk xëy da Mbaye ak salaam incha allah mm-hmm. et njaboot gi aussi suñu borom teg ci loxo bu baax a baax mi ngi noonu donc Mbaye Babacar dañ lay jox rendez-vous euh, semaine prochaine incha allah ñu daal di dikkaat wéeru waxtaan bi ci kooku di Serigne Modou Moustapha Mbacké ñu daal di ñëw nag léegi-léegi dem ci rubrique dox dox bi